laqil lisaani waxlulan min xul uqad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam falyahab bilmustafa xayra shiyam yaa xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi inni uxibuka yaa shahra siyaami bila gizin fa ahlan wa tarxiban bila adadi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 di weer wu màgg bi di weer wu bari ngëneel te bari ay njariñ te rëy ab sëri ca ay fan yu neew la yàlla na ne suñu borom fekkee la ak jàmm ñu bëgg nag feeg booba incha allahu bis bu ne ñu indi ci dara ci luñ koy waajale ndax waajal ki kat dafa am solo di e, siyaare bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa fi sax allahu waraxa suñ boroom dëgëral ko bu baax a baax euh, sëñ Tuubaa ko daan teel a waajal weeru koor la te loolu mi ngi ko royee ci sàngam ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne nii weeru koor rajab la ko daan waajal te it moom noonu na rajab weeru suñ borom la shahbaan mooy sama weer man yonent bi ramadaan mooy seenu weer yéen xeet wi ndax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama suñ borom dafa leen a gënal ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ba noppi xañ leen fan wu gudd lool euh, yonent bi sallallahu alayhi wa nag ñaanoon suñu borom euh, fu ñu mën a jëlee tiyaaba ju sakkan doonte dund gi bariwut suñu borom jagleel ñu lu mel ni weeru koor ak yim def ci biir lépp nga xam ne ci la wàcce alxuraan ak guddi gi gën euh, junniy weer muy laylatul qadr moo tax anas ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daxala rajabun qaal allahuma barik lana fi rajabin wa chaabana wa balligna ramadan suñu borom barkeel ci rajab ak chaabaan te nga ca ramadan sëriñ tuba itam moom nee na ilayka xad fi chaabana an rajabin mujaddidan fashhad lii bi tarkidadi nga xam ne moom niroogum niroog yonante bi sallallahu alayhi wasallam tax na lépp fu yonante bi sallallahu alayhi wasallam jaar dana fa jaar ngir niroogum niroog moom kon Cheikh Mamadou Mountakha bu soññee ci weeru koor bi lu jiitu loolu day day dalal sunu xel ci ne Sëñ Tuubaa jógu fi mu ngi fi te ab jullit jaamu yàlla gu mën di doon da ko war a waajal balaa agsi mu xam la cay àtte la cay farataak la cay sunna ak lañ cay sopp ak lañ ca sib ak la koy yàq ak la koy defar ni ki nga xamee ne sunu yitey àdduna ak sunu mbiri àdduna yëpp noo ngi koy toppatoo ndax tey jii kat ku doon tukki di voyager di dem réew ak réew doo jékki-jékki rek eh, xamoo foo jëm néeg ba eh, tukki jot rek nga daal di gàddu sab saag daal ne damay dem Amérique wala damay dem France wala damay dem Italie wala damay dem Sénégal faw nga wut ay renseignement laajte te loolu mooy am njàng rek bala nga ca àgg ba xam eh, fa nga jëm ak kañ nga fa bëgg a dem ak compagnie bu fay dem lu muy jaayee billet ba ak formalité yi yëpp da ko lijjanti kenn ku nekk sa téléphone bi nga yor yaa ngi ci defa ko dindi loo xam ne nii jàpp naa ne jàng fiq ko gën a yomb kon ñàkk jàng moom awla layam dagg na te sëñ Tuubaa day wax ci e, njàngaleem mu am solo mi ni sunu borom araamal nañ ci mukallaf muy def dara te xamul lan la ca sunu borom tabaraka wa taala àtte kon nag mukallaf balaa def dara war naa jiital xam ba noppi yéen ñu xamut na ngeen laaj ñu xam loolu mooy wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad haruma qaddim ala ibadatin taalluma wa fil kitaabi fasalu ahla zikr tuuba liman hamma bi ilmin za nawar buñ demee ci tasawudi si xaarit ma nga fay jàngale njàngale mu am solo toxalee ko ci waxi al imaamul awfiyu mu ne ku jaamu yàlla jaamu yàlla gu rafet ni ko nit ñi defee julli julli gu mat sëkk ci melo yu mat sëkk wala nga njàpp njàpp mu mat sëkk ci ni ko ñëpp yi defee nga xam ne ku la gis ngay jullee ko jàpp danaan ji mën a julli mbaa moo mën a jàpp wala nga mën a sangu farata lool pratiquement waaye nag ku la laaj lu cee farata ak lu cee sunna ak luñ ci sopp ak lu koy yàq ak lu koy defar danga naan man kat xawma ci dara damaa gis nit ñi def rek may def nee na loola kat waxuma nga jëlee ca ab yool waaye bàkkaar nga ci jëlee far te lay wa nga joxe it kenn du ko nangu te it nee na du julli rek walla mu jàpp mbaa muy sangu waaye jaamu yàlla yi ci des yépp it noonu la mel dama cee tudd yooyu rek moo tax mu ne waqaala inna kulla cheyin yaqahu min saamina taati laysa yanfahu kal hajji wal jihaadi wa siyaami wa xayriha kal basli wal itaami am yeneen boroomi xam-xam yu wax lu wuuteeg nag li al imaamul Awfi wax dal ne ku julli mbaa nga jàpp mbaa nga sangu ni ko nit ñi defee te yéene caa jaamu yàlla loolu loolu rek dana la doy waaye sëñ mi nga xam ne moom la ñuy tegtaloo ay waxam nag te mooy sunu yaakaar moom lan la wax wax lu leer la wax damir bi mu def ko damirul mutakallim daal wax nag ne man sëñ Tuubaa de wax naa ne su borom araamal na ci mukallaf muy def dara ci xamul lu ci sharia atte qultu waxad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi xayri ilmi hukmi shar'i fiihi fasad nassu dalilun man kaana jaahilan bi fardihi wa lam yasal fa nafsahu abada wa zalam kon nag kenn ku nekk war ngaa fexe eh, bay sàkku xam-xam ci gépp jaamu yàlla goy mën di def bala nga ca àgg koor nag ponk bu am solo la bokk ci juróomi ponk yi lislaam yi suñ borom farataale ko ci julli ci ñaareelu ati gàddaay gi bi yonent bi sallallahu ak muhaajiroon yi jógee màkk ba ñëw Madina ba ca déwén sa ci la ko suñ borom farataal suñu borom wax ci alxuraan it ci suratul baqara aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ne yéen jullit ñi kat yéen ñi gëm waral nañ ci yéen koor nañ ko warale woon ci xeet ya leen jiitu yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun taqwallahi boobu nga xam ne mooy diplôme biñ ci jëlee incha allah danañ ci ñëw ci sunu xikma yi ci kanam beneen yoon kon danañ ñëw ci charte yi tax koor